وجاد كل بأمن وسكون إلى ولي بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu seen mbokkum taalibe Mame Mor Mbacke mooy àddoo fii ci di leen nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel ci weer tedd wi ñu nekk di weeru rajab tey gën a feddali rek ndigal luñ jot lu bàyyi ci xalif général de Mouride sëriñ Mountakha Bachirou Mbacké yàlla na ko suñu borom yàggal te wéral ko jaar ci cheikh Aboul Baraka mi nga xam ne mooy xalifa cheikh Modou Fadal ci kaw suuf euh, jëm ci mboolem njaboot gi sëñ boo jotli kooku rakkam sëriñ Ahmadou Badawi moom cheikh Modou Fadal euh, ndigal li nag moom la ñuy feddale rek ci bokk yi ñu féete fii ci Washington DC ak li ko wër ndax ndigal bu jógee Touba moom fu ab taali bi nekk rek cala kon fu taali bi nekk rek Touba la ci moom. kon fii ci Touba Washington noo ngi fàttali bi yëpp ndigal loolu jëm ci kasu rajab gi sëriñ bi ne nañ ko dundal waaye nag soppi nañ ko daan defee ndax li xew ci jamono ba tax na ñu jël ay matukaay nun waa fondation Xaadimu Rasul te président ba di sëñ Abdoulaye Seck ñu fas yéenee nag wéyal ndigal loola ci kaw dundal kasu rajab gi waaye ci melo wi sëriñ bi wax na nañ ko ci dundale ku ne dundal ko fa nga nekk ci sa kër ndax ni ndax jamono laajut fi mu ne nii ay daje yu bari ngir eh, mbas mi nga xam ne mooy tasaaru ci àdduna bi yàlla ci yàlla musal ñëpp musal ci mboolem jullit yi ba tax na kon fii ci képp koo xam ne aju nga ci fondation Xaadimu Rasul North America te nekk fii ci Washington DC area ak li ko wër ak mboolem jullit yi ni ngi yëgle ne kazu rajab gi ñi ngi sàkku képp koo xam ne yàlla yóbbu nu ci bis nga dundal ko loo man fa fa nga nekk eh, ci njàngum alquran njàngum xasida tudd yàlla yokk ko def ko tawassul eh, ndax eh, jamono la boo xam ne lu ñuy def ci jaamu yàlla rek daa war a yokk ngir ñaan yàlla mu teggi yi nga xam ne moo tegu ci kaw askan yi ba tax na kon nun waa fondation Xadimu Rasul noo ngi yëgal ñëpp ne des na ko dundal waaye des koy dundal kenn ku nekk fa nga nekk ci kër ya ñun ñi nga xam ne ñooy féete ci kër sëriñ bi itam danañ ko dundal foofa ci njàngum alxuraan nañ ko daan waxe waaye nag dafa dëppoog nag président wu réew mi eh, joxe déclaration tey jii ne bépp mbooloo bu ëpp fukki nit eh, mayetuñ ko kenn ngir bañ jàngoro ja tasaaroo eh, président daayira fondation Xaadimu Rasul nag woo ma léegi wax ma ko muy sëñ Ablaye Seck ngir ñu war ko yaatal ci bokki taalibe yi xamal ko ñëpp. ne e, loolu itam dafa dëppoo ndigal la jóge Touba ñuy di ko jafe su ko defee kon ku ne defee ko sa kër rek ñu bañ a e, moytu daja yi teewu nag bisub kasu rajab gi képp koo xam ne nii amoon nga coobare yi togg berne ngir jëmi Cheikh Amadou Fadal du tee mën nga koo def e, su ko defee nga woowaa social wax leen ko ñu jël ko yóbbul ko ñoo ko soxla ak fuñ mën a ne loolu yëpp ci berne lay bokk. waaw ah, loolu daal moo doonoon ndigal li nga xamante ne bii moom lañ waxoon ne nañ ko yaatal te eh, wa daarihim ma kunta fi daarihimu wa ardihim ma kunta fi ardihimu loolu la sëriñ bi wax eh, mu daaralante ne ñoom li feeg yéen ngi ci seeni kër kër yi jàmbur wa ardihim ma kunta fi ardihimu na ngeen di gërëm loo ñoom seeni loi maanaam lañ tëral ci seeni loi na ngeen ko accepté li feeg seen diine bañu ko su ko defee nag kon gannaaw Euh, li président réew mi wax ne mayatut lu ëpp fukki nit di daje fi barab day daal di dëppoo euh, loolu yi sëriñ bi wax rek ndax noo nekk ci suufi jàmbur kon nag li luwaa yi digle ak seeni palasi li fekk suñ diine bañu ko ñu jafe ko day daal di jaadu day waar loolu rek lañ ne woon nañ ko yaatal di ñaan suñ borom yóbbu na ci tëbb dëppoo ci ngërëmul yàlla ñu tuweeg cheikh mu cheikh na ahmadul xadim ak ngërëmul mu ahmadul fadal mi nga xam ne moom la ñuy màggal bisam bi nga xam ne ci la jamono tamit bis bu màgg sëñ Fallou di ko màgg kon yàlla na ñu ñëpp euh, yàlla na yàlla taas ci barkeem te musal ñëpp ci barkeb Serigne Touba barkeb Cheikh Abdoul Fadal loolu moo doonoon kàddu yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.